jërë ngeen jëf euh, ami téléspectateur people 221 ñi siiw ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm comme niñ ko daan waxee rek di nuyu suñu kilifa di nekk suñu kilifa day di ñaan réew mi di Sénégal yàlla fi suñu borom dolli jàmm di nuyu ñëpp te nag ñu seet si koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi euh, mu di Serigne Mbacké Nouroullah seen si xaw moom waxtaan bu yaatu ci wàllu actualité aussi tamit ak ci wàllu xam-xam sëñ bi dama lay bàyyi nga nuyu ngi lay suivre. salaamaaleykum mbokki sénégalais yi ak fépp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk nuyoo ba yelloo ak sa jëmm mhm. di wax ne géej na nañu def waxtaan fii nga xam ne mooy ci bërëb bi mhm. waaye nag lépp ci yitte rek ak ci jafe nit ñi mhm. jamono bu nekk moom moo ñuy tënk rek waaye am nañu yéene bëgg waxtaan ak yéen jamono bu nekk li nga xam ne mooy xew ci réew mi ak jafe-jafe yi ak li nga xam ne mooy saafaraam bisimilah ah, fi ma njëkkee ci waxtaan bi ñu gis kii di Ousmane Sonko war wuy ji benn procès. procès boobu noonu daanaka indi coow lu rëy ci réew mi ban jàngat nga am ci loolu. Mhm. waaw loolu de jàngat bi ma ci am jàpp naa ne mooy jàngat bi nga xam ne moom la ci sénégalais yëpp am ndax sikkiwul ne euh, situation réew mi ak fii mu toll ci fi mu jëmee dëkk bi ay jafe-jafe képp la. Mhm. te li ko waral ak li nga xam ne daf cee aju mooy mbirum politique man yàlla baaxoo ma ma yëngatu ci politique xaw ma mbirum politique ni muy doxee waaye it am nañu xam-xam ci li nga xam ne moom mooy xew ci réew mi ak jafe yi ndax ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko dafa mel ni nit la koo xam ne ku sonn. Mhm. ku suñ borom teg ay nattu la. waaye nag loolu dama koy sant mu muñ ngir ne képp ku suñ borom teg ay nattu ni nattu ya toll rek yan ba dina toll noonu. dama koy méngale sax ak nattu yonente yi ndax nit koo xam ne yaakaar naa lu toll ci ñetti at nit yi duñ xëy te waxuñu ci yow journal bi du xëy te binduñ ci yow palaato yi duñ xëy te defuñ ci yaw ay débat ak ñi nga xam ne dañuy sasoo di yàq ab deram waaw lu ci feeñ lu mel ni barki démb rek gis nga ay photo yoo xam ne dañ koo génne dinaa ñëw wax ne kii Ousmane Sonko la ak yu ñaaw yooyu te man ñi koy def man seetiwuma ci état senegal bi nga xam ne ki ko jiite mooy Macky Sall direct laa koy wax ki ko jiite di Macky sàll dafa mel ni Ousmane sonku daf ko tiital na xam ne nguur googu Ousmane Sonko joxu ko ko bu dee jógu ci ay loxoom du Ousmane Sonko moom moo ko ci jële subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy def di dindi lépp ci moom la aju kon nanu rafetal nekkin wi ak dundin wi néewal doole gu metti gi nag dafa yéeme dafa ëpp ndax sa mbokkum jullit sa doomu réew bis bu yàlla sàkk saa yuñ xëy di dox ci jëm ci loo xam ne buñ ca yeggee rek jafe-jafe mën naa am mhm. te Macky Sall loolu xëy na ñi ko jege waxuñ ko ko mhm. waaye li wér mooy que fi nga xam ne moo la situation réew mi toll li ñuy wax ne kilifa yi dañu war a wax ñëpp dañu war a wax tekkiwul ne kilifa yi waxuñ waaye fi ñuy waxee mooy na maam Abdoul Aziz Dabakh daan taxawee jàkkaarloog askanam féeteek askanam wax ca kaw ba ñëpp xam ne lii mooy position am te yonente yi loolu moo nekkoon seen mission dawuñu wan ginnaaw benn yoon seen peuple jamono bu nekk seen peuple lañ daan soutenir lépp lu nar a dox seen digganteek lu leen di suufeel ñu jéem a xeex loola kon jàpp naa ne bu leen fi suñ boroom tegee ngir ay ndono li gën a yell ci ñu sàmm ko mooy dox diggante askan weeg bépp jafe-jafe boo xam ne gaar na leen te événement yi nga xam ne moo amoon ak yi nga xam ne ci lañ dox jëm ndaw ñi rek ñoom ñoo ciy perte ndax ñoom ñooy aveniru réew mi. ñii dafa mel ni askan wi ak seeni yitte askan wi ak seeni jafe-jafe sax yitteelu leen ndax réew mi kenn ku ci nekk xam na ne mi ngi am crise ñi ngi nekk ci ay jafe-jafe dund gi cher location bi cher. père de famille xamatuñ nenn nu ñuy def ba dundal seen njaboot ngir jafe-jafe yu bëri waaye dafa mel ni état bi moom talut loolu li mu tal mooy mbirum politique mbirum faagaagal benn adversaire u politicien mbirum chargé ay nit ñuy wax ci moom ak a jëf lu bon te bañ ko dalee def ba léegi mënuñ ci am résultat bu baax kon teenoo dina dellu ginnaaw ci loolu d'accord teenoo jël mbir yi ñu delloo ko ci loxo yàlla suñu borom subhaanahu wa taala te doyloo ko ah ñi nga xam ne ñooy def lu bon te nga xam ne Macky Sall laa moo ci jiitu de xanaa xamoo ne bu mu musiba bi ñëwee du ci mucc kon nag na yërëm askan wi kon da nga jàpp nii lii ay pexe Macky Sall la waaw amul da nga jàpp ne de moom la ndax buñ la joxee am réew am loo xam ne day xew ci réew mi jamono bu nekk duñ la gis nga génn wax ci. te ñu xam ne ki nga xam ne moom la ñuy dal ci kawam yow yaa ko raje woon. Mhm. yu bari ci ay nattu yow yaa ko teg. Mhm. kon sab loxo génnu ci. Mhm. te damay wax ne réew mi du réewum Pastef du réewum APR réewum senegal la. Macky Sall na gëm yàlla te xam ne jiitewul waa APR Sénégal gépp la jiite ba ci Ousmane Sonko moom kon na xam ne lépp luy responsabilité ci jëmmi doomu aadama suñ boroom moom la ko jox. lépp luy jafe-jafe bu mu dal ci kaw nit la nga xam ne moom moo cay aw ay ak aw yiw ëllëg dana jàkkaarloog boroom te dina ko laaj. kon na bàyyi xel loolu na delloo si waat xelam ta xam ne day dee de bis day ñëw dañ koy teg ci ak jaar jàppoo ko dem suuli ko te diir bu gàtt léegi mu ñëw. kon na moytu te xam ne poñitum àddina bi jërul xeex jërul xuloo jërul xëccoo moom yàlla teral na ko de. Sénégal yi delloo nañ ko njukkal de lañu waroo a def ak moom lépp def nañ ko. ba muy ba ba muy nekk gone bu xa bu xoolee jaar jaaram démb xool tey te xam ne suñu boroom dimbali na ko. jox nañ ko ay ay ay poste directeur jox nañ ko poste ministère nekk na président assemblée nationale laaj benn yoon réew mi jot ko laajaat ko jotaat ko ah kon wàccoo nañoo moom. kon li mu warloo ñun ci liggéey sunum réew na ko def bu ca noppee. mu xam ne askan wi bëggatuñ ak toogam na takk ay bagaasam te dem moom ak njabootam. bu dul loolu rek musiba la fi indi. waaye nag bu ko indee du ci mucc de. loolu moom ñu ngi ko koy xamal te ci bàyyi xel te nag sëriñ si ma wax la ci ñoom benn mbir man Ousmane Sonko koo gis sama bët bii mës ta jàkkaarloo ak Ousmane Sonko mosuma wax ak sax nit ku ko xam waaw li nuy xeex suñu borom ak askan wi rek moo tax ñu koy xeex. waaw waaye nag dañu wax ne ay far nit ki dafa war a far boo gisee dëgg nga xam ne lii mooy dëgg da ngaa war a far. ku farul rek da naa feq waaye Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne lii ñu koy teg nekkul lu jaadu. man waxuma ngir benn intérêt. bu dee kër am naa ko bu dee oto am naa ko te maa ngi sant sëriñ Saliou ndax mi may dimbale. kon li may wax sama borom rek moo tax ma di ko wax ak askanu Sénégal wi nga xam ne képp ku am kàddu mën a wax dafay yell ci yow loolu nga wax ngir situation yi ñu nekk ñu génn ci. d'accord ma ñëw ci video yi nga xamante ni fan yi mu ngi lëmbe ci réew mi. muy vidéo Lomotif yeeg yu kenn xamul ñu jëmale ko kii di Ousmane Sonko. waaw loolu de jàpp naa ne mënul yàq ci moom dara mënul yàq ci mbiramit dara. ndax wax naa la ko léegi ba ñu dalee wax ak di yàq ci moom def na ñetti at. tey la ko ndaw ñi gën a bëgg tey lañ ko gën a jublu tey la ñu gën a takk seen digg it ngir jàmmaarloo képp ku ko bëgg a néewal doole. kon jàpp naa ne loolu ñi koy def ñoom ñi koy def ñoom lañ engagé ñoom la ci askan wi di jaare di weddi rek. ndax wax lu bon ak jëf lu bon yàgg na ci àdduna sax laay wax du ma réew mi waaye Sénégal daf cee rawati dafa mel ni nit yi waxkat yu bon yi defkat lu bon yi ñoom lañ gën a favoriser dëgg la nanu warmaal suñ sëriñ si wax ju bon ji ak jëf ju bon ji ñu jëmale ci sëriñ si xanaa yëguñ ne sëriñ si solution yu bari ñoom ñoo ko indi ci réew mi sëriñ si nga xam ne dañ leen a yaakaar di leen tàllal seeni loxo ak sëriñ si nga xam ne ñooy toog di ñaan boroom xam-xam yi nag ñoo tax may wax waaye nag nañu wormaalante sunu biir na nu wàññi yàq gi yàq deru nit yàq deru usmaan Sonko yàq deru ma Massamba ak ma Mademba loolu de yow mi koy def du la jariñ dara. Mhm. bàkkaar nga ci am ak daani yàlla askan wi nag yeewu nañ. Mhm. defkati lu bañ yëpp ràññee nañ leen bu ngeen jàppee ne dañ leen di tàccu ngir bëgg leen dañ leen di ngir suruxal leen. Mhm. xanaa yëgoon lu bon li ngay wax wala nga nga di ko def. day des ci internet bi ba faw boo demee ba doon mag ba am juróom-ñaar fukki at. yow mi koy def yàlla na la suñu boroom may gudd fan. ba nga fekkee li nga daan def xam ne dara baaxu ci. Mhm. say sët di ko gis nga koy gis. Mhm. boo deewee di nga jàkkaarloog sa borom de. Mhm. dina la ko laaj de. ana boobaa lan nga koy tontu. ma ñëw ci kii nga xamante ni fa laay jeexee ci wàllu actualité mu di Mollah Morgun. xaw a bett sénégalais yu bari. Euh, taxawaayu Mollah Morgun ak surprise bi nga xam ne indee na ko bettee na ko sénégalais yi ban jàngat nga ci am. loolu de xëy na mën na bett ñi nga xam ne amuñ xel waaye borom xel yi loolu du leen bett. ndax képp koo xam ne yor nga kàddu wala nga nekk nit ku diiñ doo gis mukk muy taxaw di tontante xeetu nit boobu. moom mm-hmm. laa Mor gën man jàpp ma ne sax nit ku baax la ndax nit ku baax du wuññi njàqare nit maanaam di wax ci ab safaan nit. Mm-hmm. te ma ko ci Ousmane Sonko wax na ko ci ay nit ñu bari mm-hmm. ñee di ko tàccu waaye dama ne loolu du ci am ndam. loolu bettul bettuma man. ngir koo xam ne day wuññi njàqare nit di wuññi li nga xam ne mooy suturas nit. na nga xam ne kooka intérêt moom moo tax muy wax moo tax muy jëf te li mu def fan yi wane na ko waaye nag na xam ne def ko Ousmane Sonko boppam rek la ko def def ko askanu Sénégal yi boppam rek la ko def ndax nit ñi jànge nañ ci xam nañ ci xame nañ ci xëy na nag la di la tax mu di ko def moom moom moo ko xam waaye nag nañu def attention ci jëf yu bon yi ak yu ñaaw yi lu yokk dara nit ki lu dul daf koy wàññi ak daf koy yàqal dafay dox digganteem ak mbir yu bari waaye nag nañu takkuwaat ñun xool li nga xam ne mooy dox suñu digganteeg lépp li nga xam ne moo ñu yàqal mm-hmm. te takk suñu digg dox jëm ci li nga xam ne lépp moom mooy li nga xam ne moo ñu jëmale ci kanam mm-hmm. te dama gis nit koo xam dafa benn waay boo xam ne dama ko gis ci benn commentaire mu wax wax ju am solo mm-hmm. mu ne moom Ousmane Sonko lim ko woo ak lim ko wan ak lim koy wax moom loolu la gëm te gisul dara luy dox digganteem ak moom gëm-gëm boobu ak lu nit ñi mën a wax ak luñ mën a jëf mu ne dina def lépp lu man ba tàqalikoo moom ci fal ko ba keroog muy gis li nga xam ne moo wuuteeg li mu doon wax. Mhm. waaye nee na du nit moo koy déconcentré ci gëm-gëmam. Mhm. nit ku ne foofu la war a taxaw. Mhm. yàq moom du fi jóg ba mukk te ñi koy def mooy ñi nga xam ne ñooy ñi nekk ci état bi. d'accord ñoom ñooy def jëf yu ñaaw yooyu nañ ko moytu loolu gënut. maanaam ci bàyyi xel état état nga joxoñ baraamu tuuma. parce que am na ñu naan xaalis bii nga xamante ni sax dañ koy jox nit ñi est-ce que xajul woon ci dëkk bi aussi. waaw dëkk bi fi mu ne soxla na ay projet yoo xam ne dafa jëm ci wàllu santé wàllu lekk gi ñu wàññi ko. terre bi barki démb yaa ngi dégg ñu leeralaat ne Sénégal moomu ko. Mhm, mu bett ñu bëri mhm, mu bett yi ñoo ko moom. Mhm. bari na ay entreprise yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi di fi récolter ay milliards. askan jàpp ne milliards yooyu ci des dëkk bi lay des. fekk du fi fanaan sax. kon Sénégal moom moo ciy perte. te Sénégal yàlla may na ko mu am bépp ressource boo xam ne mën na développer réew. te mënuñu cee jariñu lan moo ko waral dañ ñu caaxaane. ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ñoo ko jël jox ko étranger ñu koy jëfandikoo. nit ñi nañ gëm yàlla. Mhm. te xam ne jariñ sa réew. Mhm. ak bëgg ko. Mhm. loolu ci gëm yàlla la bokk sa borom dalay fay. falu ñu leen rek ngir ñu ñuy caaxaane. li ñuy jox tubaab yi ñun soxla nañ ko. kon nañ ñu dimbule ñu revenir ci li nga xam ne mooy jafe-jafe askan bi d'accord réew mi kat metti na. jafe-jafe yi kat bëri na ndaw ñu bëgg nañ ku leen dimbule ndaw ñi ma gis ay jàmbaar lañ de. dañoo taxawul benn yoon ci jàppale leen. Mhm. te ña ngay def lépp lañ man ngir mhm. génn ci situation yi ñu nekk. waaye ñu yor milliards yi di ko pasar pasaree mhm. di ko mayee di ko jox benn nit ah xam naa ne li ñuy def ëpp na te ñaaw na de. Ah. te askan wi gis nañ ko. ñu ngi jàkkaarloo moom dañ ci amul pexe. waaye nag xëy na yàlla dinañu tàqaleeg jafe-jafe yi ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def. muy ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite sunu état bi. Macky Sall mooy première mëneesul ñàkk wax ci moom ndax moo jiite réew mi. te yaa ngi jàkkaarloog moom ban message nga koy lancé. li ma koy lancé mooy que moom mu xam ne yërmande la war a nekk ci aw askanam ndax suñ borom loolu la yebale woon yonente yi loolu la fi yabale woon nit ñu baax nii kon suñ borom bu ko jiitalee suñu kanam ngir mu yërëm nu moo tax waaye ñun duñ ay noonam na xam ne sénégalais bi bokk Pastef ak bi bokk APR yëpp benn carte d'identité bi lañ yor kon na boole jiite ñëpp la ko war ci réew mi mu def ko te moo ñu ko gën a xam réew mi fi mu toll soxla na lu bëree bëree bëri ci wàllu ndimbal ci wàllu développement ci secteur yëpp kon responsabilité bi ci moom la war. Mhm. na xam li ko war ci réew mi mu def ko. Macron mi nga xam ne moom la topp ci ginnaawam di yàppar yàppari Macron du jullit nit ku baax ñi tas àdduna ak ñi ko yàq ci la bokk. Mhm. gëmul benn religion. Mhm. te loolu la bëgg a jëlee ci àdduna bi. dafa mel ni français yi ñoom ñoo ko chargé ngis ngir mu détruire aw askanam. yooyu na ci génn loolu xam nañ ci lu leer am nañ ci ay xam-xam yu bari xëy na dinañ ci def yeneen révélation waaye loolu taxu ñoo jóg li nu tax a jóg mooy moom mi nga xam ne moo jiite réew mi. mu ñëwaat ci suñuy jafe-jafe chaque jour loolu la askan wi di insister na ci bàyyi xel te xam ne looloo tax ñu teg ko fi jërëjëf mu ngi noonu waxtaan wi am na solo trop euh, ma ñëw ci wàllu ñaan fi muy njëkkee ci wàllu nopp wàllu nopp laa bëgg nga dil ma ci ay leeral nopp de suñ borom am na lu mu ñu ci may am na it loo xam ne bàkkee nan ñu ko ci mhm. ndax euh, dafa bari loo xam ne dafay am ay jafe-jafe ci wàllu relation gis nga wàllu relation ci wàllu bëggante am na ci ñoo xam ne dañuy wax ba tënk ba nga xam ne dara doxul seen diggante ak ñu war a dem takki. Mm-hmm. dootuñ déggati kañ doon bëggalteer wala dootuñ ko gisati loolu ay yàq la. rab dina ko def liggéey dina ko def ci nit maanaam bari na yoo xam ne da cay sababoo. waaye li wér te wóor borom may nañu ci wàllu xam-xam lu wér loo xam ne ci wàllu nopp dañ koy liggéey mm-hmm. xanaa kuñ ko deful waaye képp kuñ ko def. kañ la defal sa digganteeg moom ngir mu bëgg la moo xam ku góor ki moo xam ku jigéen ki li des sag dund kooku mënatu laa woon ginnaaw xanaa ñu liggéeyaat ci liggéey boo xam ne dañ koy dindi ñun te ñun rek ñoo ko mën a dindi ñun ñu ko def. Mhm. waaye nopp moom am ci lu ci sun borom may loo xam ne képp ku nu ci jëflanteel. lépp lu la naqari woon ci sa digganteeg ngay bëgganteel saafara na ci am ci bu gaaw a gaaw mhm. am na ci ñaari xeetu nopp yu may liggéey am na ci boo xam ne projet diir bi mën naa bañ a gaaw waaye nag bu jàppee Dubaï waaye am na ci boo xam ne non bu 24 heures la. Mhm. boobu nag ci ñi nga xam ne dañoo marié ci la gën a gëne. Mhm. ndax da gis ñoo xam ne dañoo am jëkkër seen jëkkëru jekk-jekk wan leen ginnaaw. Mhm. te lu bari ay sabab la mën nañoo takk sax beneen soxna mu indi loola. ndax sëy bul jàpp ne nit ñi dañ ci nekk nii rek ay loxo képp ku ci dugge ak neen mën nga ci génnewaat ak neen ab sëy dañ koy ñàkk. ku góor ki na ñàkk digganteem ak soxnaam ku jigéen ki na ñàkk digganteem ak soxnaam gis nga yii nit ñuy wax ñu jàpp ne ay waxu kese ay waxu kese de mm-hmm. bari na sëy yu tas la ko tas du agent waaw parce que foofu bëggoon naa nga dem ci ay leeral sëy léegi nit day sëy tey gannaaw suba ñu ni tas na waaw loolu bari na ci loo xam ne li ma la ko wax am na ci ñoo xam ne ñoom ci seen jëmmi bopp dafa am lu leen yàqal dafa am luy dox seen digganteek mbir yu bari te ñoom bu ñu wéetee dañuy xam ne lii du neen mm-hmm. rab yi dañuy yàq dañuy dox seen digganteeg mbir yu bari te loolu nekkul luñ mën a misaal ba nit ki xam ko lu ñuy seet la ba gis ko ci buntam na ko lii moo dox sa digganteeg mbir mi sa yii li koy yàq bokk na ci loolu bokk na ci it ay dëddale am na ci ñoo xam ne dañ leen di dëddale ñoo xam ne diggante ba da leen dul neex mën nañoo bokk ca famille ba wala ñu bañ bokk wala ñu nekkoon ak soxna si ba xëy leen ñu dox digganteem ak ka bëgganteel ci ñaari yëpp ku góor ki wala ku jigéen ki waaye nag li nga xam ne daal moom moo ciy solution mu gàtt ma wax ko man suñ borom dimbale na ma ci wàllu noob ma ciy liggéey loo xam ne képp ku ma ko defal ci kàttanuk suñ borom la nga amoon jafe-jafe ci wàllu ka ngay bëgganteel day saafarawu nu mu gën a gaawe jigéen gi nga xam ne sax dafa nekk ci sëy di wujje am na loo xam ne buñ ko joxee yow mi nga xam ne yow ay aawo xanaa yëgoon ne sa jëkkër du ba àddunay tukki na ñoo xam ne ñaareel yi ñuy takk teguñ ko ci yoon am na ñoo xam ne ñetteel ko ci am na ñoo yi teguñ ko ci yoon seen bëgg-bëgg lañ ko teg te am na ci ñoo xam ne liñ ci jublu mooy toroxal ku jigéen ki ndax kooku bu ñëwee rek sëy normal jafe-jafe du am waaye dañuy boole ci sëy ba yeneen yooyu nag laa la wax man ku ma ci dégganteel dinaa la jox loo xam ne boo ko gardee ba addunay tukki sa jëkkër du takk soxna ba addunay tukki nag laa la wax xanaa nga jël loola nga sànk waaye tànk yaa ngeek moom doo wujjee ci kaw suuf loolu moom maa ngi ci bàyyi du ñëpp nag laa koy defal waaw nit ñu responsable lañ koy defal ñoo xam ne seen jëkkër suñ borom dimbule na leen ba seen lépp jag wala seen man-man demewul noonu. Mm-hmm. ñu bëgg a takk keneen te loolu ay coono la rek. Mm-hmm. soxna da ngay bàyyi ba man ko mm-hmm. ñu ñëw ci wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu ubbeeku. ñu gis ni jamono ji ndaw ñu bari presque euh, ñu ngi xàddi jàpp ni dootuñu réussir ci seen àdduna te ma gis ñoo xam ne tey yàlla sunu borom jaaral na leen seen loxo ba ñu sambay entreprise ci wàllu wërsëg. waa xam nga nit ki li ma koy digal bu ñàkk yaakaar mukk ci boppam ci benn jamono. ndax sunu dafa bind te waaye nag ñaan. nañ bàyyi xel ne mën na lu nekk ñaan day dox digganteeg nit ki ak mbir yu baree baree bare ñaan gis nga nit ki bu farloo ci ñaan di def ci yaramam wala muy muy neexle ñu koy ñaan kum mën a doon xëy na nag coow def ci bëri ci wàllu ñaan waaye xam-xam am na de xam-xam mi ngi def di dindi bari na ñu ñàkkoon démb ci xam-xam lañ leen taxawoo tey ba ñu am li ñu am bari na ñu am tamit yàqule ci xam-xam lañ leen taxawu bañ delluwaat mel nañ meloon. waaye nag képp ku ko sàggane rek dina ko gis man damay dimbali nit ci ñaan ci fànn goo xam ne daf koy ubbi am na jaaro boo xam ne dama koy liggéey am na ci loo xam ne it duñ la jox jaara sangat rek lañ lay jox loo tëju tëju loo jafe-jafe loo am ay jafe-jafe wala sax bari na ñoo xam dañuy am ay diplôme duñ mën a liggéey wala fa ñuy liggéey ñu am ci ay jafe dañ la ciy taxaw ci diir bu gàtt man li may li may liggéey di ko jox nit ñi lu tuuti la nekk loo xam ne am na loo xam ne bu ma la ko joxee bu fekkoon da ngaa nekkoon nit ku ñàkk wallahi la azim boo àndee moom ci kattanu suñu boroom di nga yëkkati ko ba ñëpp gis la man damay dimbale nit ñi ci lu bari te teguma ko ci wàllu alal teguma ko ci wàllu xaalis ndax man maa ngi sant suñu borom ma kenn teguma kenn lu munut li gën mooy nit ki nay xam mbiram di seetlu xam yëfam fan la toll xam nan lay def ba ubbeeku mhm. yàlla moo la fi indi waaye moo ne la wa aataynaahu min kulli shay'in sababan fattabaa sababan mhm. suñ borom moo ne la deel sabablu te nga toog sabab yi mhm. boo ko defee am nga mille sens pour réussir surtout ndaw ñi ndaw neex naa ñaanal ndax lu bëri dafa nekk ci loxoom waaye nag ki gëmul ñaan moom na xam ne moom yoon wi mu nekk baaxut. Mhm. xëy na nag am na ci ñoo xam ne dañuy taseek nit ñoo xam ne. Mhm. lañ leen di wax wala lañ leen di wan moo leen dul doyati. ba mhm. tax na ñu ragal. waaye bu ñu ragal de man maa leen ko digal. xam lu wér la lu am la. manees naa dimbali nit ba mu génn ci benn dem ci téeméer wala ci junni. te man suñ borom am na lu ma ci may. ci barkeb sëriñ Saalihu. maa ngi ciy dimbali nit maa ngi ciy def maa ngi ciy dindi. ci kàttanug suñu borom. ma ñëw ci li nga xamante ne moo di wàllu papier ñu gis ni jamono ji ñu bari dañu am ay jafe-jafe papier nga ci liggéey noo xam ne nag lu mucc ay mucc ayib la parce que papier yi li nga ci liggéey dépassé na sax ki nga xam ne dafa tukki. Mhm. képp kuy déposé sax liggéey ci entreprise yi ci wàllu papier. Mhm. waa loolu suñu borom am na lu ma ci dénk gis nga wàllu liggéey ci lu aju ci loo xam ne liggéeyu nasaraan liggéeyu tubaab képp ku ñëw diis ma ko. la lay wax mooy la am këyit wu bokk foofa rek nga indil ma ko. Hmm. la ma la ciy defal ma la ko defalee kenn mënta tee nga liggéey ca bërëb ba. te li ci gën a yéeme suñ borom ñëm ca gën a tàggat ñu yëkkati ku ca ngay bokk. Hmm. moo xam ki bëgg tukki. moo xam ki nga xam ne dafa am jafe-jafe ci wàllu këyit tukki bëgg ñëwaat. Hmm. wala ki nga xam ne dafa bëgg liggéey ci entreprise. wala ki nga xam ne diplôme sàngam daf koo jafe lépp lu aju ci këyit rek. waaw ndax dafa am lu ñu lu ñu relais lu relation boo xam ne dañ koo am ci ci mbirum këyit ndax loolu ndono la ci ñun ndono la ci ñun man këyit bu këyit bu mën a doon bu ma bëggee nga am ko lu néew laa lay jàngal am lu ma la wax nga def ko këyit bu mën a doon danga koy am man bari na ñoo xam ne dimbali naa leen ñoo xam ne yàgg nañ Europe lool bañ dégganteeg man deful trois mois dellusiwaat nañ seenum réew fekk dugaloon nañu ay ay demande ak yu mel noonu mhm. suñ borom daf koy saafara ci bu gaaw a gaaw a gaaw yàlla rek mooy maye lépp mi ngi ci loxoom am na loo xam ne boo ko jàngee ba diis ko sa borom wallahi lancim du may hmm. la nga ko ñaan ala kulli xaalin dala koy may hmm. ci fànn yépp nag mbirum kàttan nag lu mën a doon rek hmm. ñu ciy taxaw kàttan boobu noonu laay ñëw ñu gis ni daanaka ñu bari nag jamono ji góor ñi mënatuñ dara muy wàllu impuissance sexuelle foofu noonu laa bëgg ñu indil ba fa ay leeral ñu tëjee fa it xëy na ndax mbirum kàttan dañu wax ne day dafa bari ñum sonal hmm. ci mag ñi waaye bari na ci ndaw ñi de. ci lopp sax man léeg damay am ndaw ñoo xam ne vingt nangam ñaar fukki at ak nangam rek la ñuy am dañu may jàmbat mbirum kàttan. Hmm. léeg-léeg nga gis mag moo xam ne day am 70 ans naan la man de damaa jëm mag kàttan gi moo tax demeewul noonu hmm. xanaa xamoo ni nit mën na dund ba deewaare ak kàttanam daañu gis suñ maam ñi daanañ am téeméeri at ngay ñëw ci kër gi fekk fa gone gu ndaw nga ne ndax kii mooy sëtu paa bi ñu ne la déedéet du sëtam de doomam la kon nit ki ni ko yàlla bindee mën na deewaale ak kàttanam gis nga kàttanu goo xam ne dafa dañ ci nit wala mu wàññi ko wala nit ki tële loolu saafara ko nekkul lu jafe am na menn ndox moo xam ne bu la yàlla dimbalee ba nga am ko secret la nag nekkul lu ñuy wax ñu boole kook benn sunguf ak reen benn benn reen boo xam ne ci àll bi lañ koy wute man donc li may defaree li ma koy defaree loolu laay wax. wallahi lancim lu kàttan ga néew néew. loo tële tële tële dina la delloowaat na nga meloon. Hmm. à cent pour cent. am na ñoo xam ne nag ci wàllu kàttan dañuy dañuy calmer. Hmm. am na ñoo xam ne dañuy joxe garab bi jàmbur. Hmm. loolu ñàkk xam-xam la. àll bii li fi nekk ci ay garab lépp day saafara. jëlale naa wàllu kàttan waaye am na ci feebar yoo xam ne sax tëna nit ñi ci garab yi lañ koy saafara. am na ñax goo xam ne yaa ngi koy romb ci àll bi xar yi di ko lekk ak mbaam yi ak fas yi maa ngi ciy liggéey loo xam ne lu yéeme la ci wàllu kàttan man kàttan duma ko calmer dama koy faj faj nag laa la wax képp kuy calmer ak kuy joxe ay garab yoo xam ne am na ci ñoo xam ne sax ma jox la benn secret nit ñi nañu teey ci mbirum garabu kàttan am na ñoo xam ne garab yi ñu lay jox dañ koy composé ak garab yi tubaab te loolu baaxul day rey mhm. day indi yeneen conséquences mhm. nañuy def attention mhm. ndax nit ñi dégg nañu riirum kàttan rek xam ne nit ñi am nañ jafe-jafe kàttan te mënuñu koo muñ ñuy jaxase ay garab di leen jox mhm. loolu dañuy rey organes nit ñi loolu nañ ci def at attention ci wàllu médecine nit ki amul droit di joxe garab goo xam ne maîtriser wu ko wala dañu la jox garab rek nga koy joxewaat parce que mënoo mixer ba xam dosage beeg limitation bi gis nga lii ma lay wax ci wàllu kàttan dafa am loo xam ne dañ ko cee xam mhm. te nekkul loo xam ne dañu jékki-jékki ko dafa am loo xam ne dañ ko donn am ci loo xam ne it ñun ñoo def suñuy gëstu ba mën a gindi nit ki ci wàllu kàttan ba dellawaat ko na meloon ba ci nit ki nga xam ne sax dafa të am doom yooyu yëpp daf ciy aju waaye daal xam-xam la boo xam ne mën nañoo toog fii bu suba di ci wax ndax bul fàtte ne am na ci ñoo xam ne kàttan gi ci néew lay tàmbalee seen awra yi di mel ni luy dellu ba yàgg buñ ko fajul ci ak tële la leen di jëmee te nit ki kat wàllu sexe centralu nit ki nañuy bañ a am complexe di ci wax nañuy saafara jàngoro yi ñi nga xam ne it ñoom ñoo ci nekk di ci wax nañuy moytu di wax lu ñu maîtriser wul ak lu ñu xamul damay yokk en war a fii ak dama ko yokk feek am na ci yoo xam ne ay caaxaan ak i tappale nit ñi dañoo jàq ku jàq nag soxlawul ku dul ko ko dimbale am na ci koo xam ne garabu kàttan gi daf koy jël di ko jaayee lu ko neexee non noonu non buñ doxalee noonu nañuy xool li méngoog tolluwaayu nit ki ñu du ko dimbale ci loolu ndax faj jafewul ci ku ko man ak ku ko xam waaw man daal sama kàddu noonu laa ciy taxawee noonu laa ciy doxeet képp ku ma sama boroom dimbalee ba ma jàkkaarloog yow wala ma dégganteeg yow dinaa seet sa mbir seet nag ca laay tàmbalee bépp mbir bu mu mën a doon bu yàlla suturaalee ba ma gis sa mbir duma la ci wax leen looy dindi ndax koo xam ne mosoo koo dégg wala mosoo koo gis nga dégg ko nga man koo leeral ci addunaam loo xam ne xam ne ne lii xam-xam rek moo ko mën a génne mm-hmm. xëy na bu buñ la tegee ci aw yoon woo xam ne sarax tey bu fàttan wàllu kàttan am na ci loo xam ne rab daf koy def mm-hmm. te bari na ñoo xam ne seytaane moo dugg ci seen biiru rab mm-hmm. am seen sidit yu ñu téye ngir dox seen digganteek mbir yu bari te seytaane du dugg nit koo xam ne ku ku ku ku ñàkk bopp la nit koo xam ne ku am avenir rek lay gàllankoor ci yu bari ci ndaw ñeeg ci mag ñeeg ñépp ci yam nag bu leen am tiitaange bu na ngeen dalal seen xel ci lépp lu mën a doon. Mhm. solution mun na am ci bépp mbir ndax xam-xam découvrir na lépp loo xam ne jafe-jafe doomu aadama la. Mhm. man nag suñu borom waxuma damay saafara wala may ñaan ci lépp. Mhm. waaye nag am na ci loo xam ne suñu borom tàggatal na ko. tàggatal nañu ko. buñ ci saafarawul ci wàllu garabit am na ci ay xalwatu yoo xam ne dañ koy def te dañ ciy def dañ ciy dindi te suñu borom am na lu ñu ci dénk ci barkeb Serigne Saliou jërëjëf mu ngi noonu moo nekkoon sama invité tey numéro téléphone baa ngi noonu di daw ci écran bi képp koo xam ne soxla nga ko rek mën nga jékkoog moom euh, tey lan ngay tàggatoo li may tàggatoo mooy la ma tàmbalee woon rek réew mi nañ yërëmante bàyyente xel te xool li nga xam ne moom mooy priorité ñu nekk ci wàllum ñaan geeg wàllu dëkk bi ni muy doxee yëpp coow yu bari na ci uh-huh. waaye nag nañu settantal rek bu uh-huh. setantal rek ubbi sa bët di xool rek uh-huh. di nga xàmmee te ku xàmmee it di nga jóg ci ak réer uh-huh. waaye yàlla nañu yàlla suñu boroom musal ci lépp loo xam ne luy gaar nit la tam uh-huh. doon lu ko mën a indil jafe-jafe uh-huh. maa ngi sant site bi di leen sant yéen it ci waxtaanu ama am solo bi dinañ ko bëgg jamono bu nekk waaye li ëpp ci sama mbir man dafay nekk léeg-léeg ay xalwatu yoo xam ne buñ ci tàbbee rek dootuñ sañatee sax wuyu téléphone waaw ndax liggéey bi it képp ku ci nekk te jox ko xam rek wax dëgg fa yàlla am na ci yu bari yoo xam ne danga nga ci tënku man nag intere réew mi moo tax may génn di wax sama wax mu bari ak mu néew loolu la rek waaw di leen wax ne ndox fu mu daan taa ba tey jii boo demee di nga fa fekk ay tepp-tepp ñun nag foofu lañ nekk ci kipaaruk Serigne Saalihu lañ yaroo fa lañ nekk di fa def di fa dindi di ci sant suñu borom bu baax a baax di leen sant yéen it di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu